loolu quand même jóge ci ñu ciy tudd oustaz yi. non sa wax na ko léegi. waaw ah. protéger. baamtu ko yow ci sa ci sa làmmiñ. waa man yi mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. fexe ba saa yi ngi wax naan kii dafa doon def procès oustaz yi. Mm-hmm. mais si yaa ngi dégg loolu sa à dire protéger les enfants. comment xam nga tey jii daara yi daara yi. daf ci am façon yoo xamante ni Charles. pour yooyu am fa dafay dafay dafay dafay dafay euh, yomb. exemple lycée lycée lycée dafay am surveillant am proviseur nangam nangam ainsi de suite. yaa ngi dégg am ñuy jàngale mais daara yi bu fekk parce que addina bi dafay dox. addina bi dafay dox tey jii war nañu toll foo xamante ne fii daara fa mu nekkoon mën na fa nekk. ñu ay matt ainsi di jéng xale yi. Mm-hmm. mais ci biir loolu aussi mu mën a am tey jii comme ñoo ngi ñuy dégg. Mm-hmm. tey ñoo xamante ni war nañu nekk nit ñu mature. Mm-hmm. ñoo xamante ni dañuy nekk parallèlement langue ak oustaz yi ak asatis yi. pour di surveiller xale yi loolu bokk na ci protection bi ki doon wax bu ko nguur gi deful it charité bien ordonnée commence par soi-même hmm. tey am na daara yoo xamante ni yooyu doog fa dégg demal kokki par exemple ah, am na daara yoo xamante ni c'est bien organisé hmm. yaa ngi dégg te état bi def fa dara mais ñooñu ñoo war a gën a góorgóorlu ci protéger xale yi bien sûr mais Charles nit koo xamante kii da feebar loolu di sa vis xaw ba vis la hmm. yi duuba ba def say pexe sax ba def ko feneen ñëw toog di xew ah, sa waay li doon wax sànq wax nga benn wax bu am solo mhm. boo demee ba xamatu foo jëm da dellu comme ñoo ngi wut ay solution mhm. dans un premier temps nañ ñaan yàlla yàlla musal ci ñëpp musal leen ci waaw man si affaire oustaz si damay moytu parce que quand même Euh, un cas ou deux, ou cinq cas bëriwul waaw donc loolu tax ma ne euh, il faut qu'on fasse attention moi je reste sur le viol. Mhm. c'est sur le viol que je reste euh, les conséquences waxuñu ko surtout si xale. Mm-hmm. mais lu koy indi. Mm-hmm. man loolu moo ma intéressé. xam nga. excuse-moi de couper mais boo nee. oustaz nga ne cinq cas. Oustaz, 5 cas. Sur combien de dar Non, Oustaz, ça symbolise. Oustaz, c'est un exemple, c'est un exemple, Comme, un modèle de la société. Il n'a pas droit à Parce qu'il s'inspire des recommandations divines, divines, issues du Coran, de l'islam. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui doit être, à la limite, absolument parfait, amoun, mais, mais le maximum possible. Donc, bon, euh, duré qui limite, il y en a un, il y en a deux, il y en a cinq, il y en a Oustaz. ça veut dire que nous sommes dans une. tapis dans une. Oustaz, catastrophe à la limite oustaz nit la quoi. mais très bien. c'est-à-dire. Euh, non Charles Charles doo demal il a raison. Mm-hmm. la ah, mm-hmm. oustaz nit. donc insister ci oustaz. mais oustaz tam mm-hmm. nit la. oustaz nit la. non on aurait pu dire dans le milieu religieux sax képp ku yore ministère religieux. loolu tax ma ne. xam nga parce que boo demoon tam euh, Vatican mooy coow ga. Hmm. Hmm. Hmm. boo demee euh, France mooy coow ga. Charles xam nga man je l'ai dit de manière diplomatique. en te disant képp ku yoon ministère religieux. loolu tax ma ne ne je ah, mais Charles vraiment comprendre nañ li may wax ba pare. Charles vraiment ah mais comprendre nañ li ñuy wax ba pare. man je suis pas un homme entravé. waaw man awma problème yooyu. yàlla bu muy sàkk Aadama ak Awa yoru amuñu woon mbubb après sol après ça veut boobu moom la ñu war a aspirer ñoom balaa ñuy trahir donc dans notre relation boo xamante ne maanaam ñun ak moom ñii la. Mm. particulaire mm. kooku nag lu doy waar la da kaa dund bës bu ne. Mm. da nga kaa bu ne parfois na mooy mais dafa am ay mooy yoo xamante ne yenn yi du la si fekk on pêche en esprit on par parole en pensée en action et par omission. ñeent yooyu la ñuy pêché amul beneen forme pêché si ñeent yooyu lay génn léegi yow fan ngay téye sa bopp man fa laa kal tey dañu toog foo xamante ne Sénégal tous les jours dañu fiy dégg loo xamante ni mu ngi ñuy commencé jaaxal le général de lu mu tudd au commandement mu ngi def ay tournées parce que ñun ñëpp tey mooy suñu wax ñun ñëpp ñu ngi koy wax qu'est-ce qui se passe chez bu fekkente ne dafa am oustaz boo xamante ne moom mooy tabax sénégalais dans sa foi musulmane mu am prêtre boo xamante ne mooy tabax sénégalais dans sa foi chrétienne est-ce que am nañ fi benn rapport boo xamante ne mën nañ ne ñu ngi foofu bon y a pour cent des oustas ou des prêtres viol wala loolu xam nga mënu ma gëm loolu. Hmm. mais par contre le viol très tôt dans notre société ak pédophilie faaw ñu wax si xam lan moo koy indi ak lan mooy saafara saafara ga nag. Hmm. dëgg la il faut ñu wax dëgg. Hmm. faut qu'on se dise des c'est très cru c'est très douloureux nit boo xamante ne mënul taxaw bu gisee nit euh, bu gisee jigéen wala le sexe opposé wala le même sexe ba pare mu war ko perturber il faut qu'on regarde est-ce que c'est une généralité wala lu proportion lu demee noonu mais sinon euh, alors euh, mën nga may tuuti 30 secondes vraiment Aminata Diallo laa doon jeexale vas-y nudité baa nit nudité boobu ngay wax noonu hmm. yow dem nga léegi ba ci Adam et Ève cest dire du fi xaj bokkul léegi nit ki nga xamante ni kii xool na nit ku mais liñ ci jëkk li ci islam bi jëkk di cautionné moo mooy bàkkaar bi xool bi xool bi

muy ñun yaay yi ak parents yi. Mm-hmm. ñu gën a veiller ci suñu njaboot. Mm-hmm. dellu ci éducation bu yàgg ba mooy na buuba li mu doon wax sa doomam moom. Mm-hmm. ak doomu katu ceef caaf bi. ils sont égaux devant la loi ils sont aussi égaux dans le cadre de la convention des droits de l'enfant et devant Dieu. et devant Dieu donc loolu suñu responsabilité boobu ñu dellu ci mais gis nga. li des mooy stratégie nationale boobu. nga xam ne ni état daf ko mettre en place. mooy protéger xale bi depuis fa mu nekk. Mhm. fa mu dëkk. Mhm. dans sa maison ba ba ci kaw. mais stratégie boobu état bu defee stratégie nationale de protection de l'enfance tamit defee les moyens ban njëriñ la mhm. joxul ñu ci war a liggéey les moyens ban njëriñ la am y a des dans ces comités départementaux y a des numéros verts yoo xam ne ni xale yi mun nañ ci wax école yi am na mais bu fekkee ne amul moyen pour ñu mun ko exploiter amul numéro vert bi waxal numéro vert de deux beneen bi mooy le code de l'enfant dont on parle bu bu jël lépp loo xam ne ni ci mbirum xale yi la hmm. lépp lu leen mun a aar lépp lu leen mun a ñu def ko ci benn code te code bi ba léegi kenn mënu koo voté code bi ñu ngi ci ñu ngi koy càmbar depuis 2017 ba tey jii ñu ngi 2020. Mm-hmm. qu'est-ce qui bloque pourquoi l'État ñu nekk di récidiver di wax di wax di wax jëf moo topp beneen bi le parlement des enfants. Mm-hmm. cadre la pour xale yi. ñoo ko moom seen droit la ba léegi ñun ñun ñooy les premiers parlementaires des enfants. ba parlement bi jógee fi depuis ay xaw ma ay avant ay ay 2015 xaw ma 2016 mu am problème ba léegi ba tey jii. ñu ngi ci wax mun munta munta munta régler loolu yëpp ci solution la te mu ngi fii ci table bi mhm. président xam na ko le ministère de la femme xam na ko ñun ñëpp xam nañ ko mhm. mais yooyu yëpp nañ ci wax mhm. nañu indi le parlement des enfants xale yi am seen voix ñu mën a waxtaane dem mën a interpeller l'Assemblée nationale ci seen ay loi parce que parlement des enfants moo ko mën moo mën a dem assemblée ne leen loi 2001 boobu qui protège l'enfant lan moo tax yéen ak li xew ci pédophilie ak yooyu lan moo tax la loi n'est pas appliquée beneen bi euh, ak li statut des daara pour ñu xam kan moo am daara lan mooy daara mhm. bu ñu ko votewul ban njëriñ la am kon yooyu yëpp ay solution la yoo xam ne mu ngi ci table président mu ngi ci table ministre mhm. ministre wax na kon volonté étatique moo des. kon nag bu ñu ko bëggee saafara nag na président agir ci yooyu nañu am code de l'enfant. nañu am euh, la loi euh, statut daara ñu am parlement des enfants bu mën a dem interpeller. assemblée nationale pour loi yi nga xam ne moo concerne liy protéger xale yi ñu mun ko ñu ñu jël ko en compte ba pare nag di ko di ko teg ci table bi xale yi mën a dem ba ca juge ba ne ko cas bii ñu indi fii lan moo tax ñu koy ndëpp ndëppal lan moo tax ba léegi amul solution yooyu je crois que bu ñu ko amee yu bëri dina sotti ndax stratégie nationale boobu mooy wax ci centre yi mooy wax prise en charge bi mooy wax ci protection xale bi mhm. depuis sa maison kon yooyu bu état financé wul bàyyi PTF yi rek di financé ban njëriñ la am wax ñu bari dañ ci sonn vraiment gërëm nañ la ci sa teewaay nuy nuyu au passage ñaari daara ci yi gën a ràññeeku ak waaye daara yëpp muy euh, Fass Touré daara kokki ay référence lañ ak yeneen ak mhm. yeneen mhm. Euh, moo tax nit ñi dox voilà daara macha allah vraiment ñu amoon mbégte ànd ak yow ci waxtaan bi léegi coronavirus bi ak euh, directeur prévention prévention ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye bismillah